ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn actualité boo xamante ni def na tour du monde ba si ñu weesu ab scandale concerné benn application boo xamante ni ay millions de musulmans ñu ngi koy jëfandikoo fépp ci àdduna bi muy Muslim Pro. fii ci Sénégal néew nga gis benn musulman bu am téléphone portable am connexion internet te doo ci fekk boobi application muy xar la bu lay permettre ngay jot ay notification saa yu waxtu julli jotee

dafa di ab xar la boo xamante nii képp ku bëgg a tey contrôler musulmans yi à travers le monde boo ci jaaree mën nga am lépp li nga bëgg ci noonee la benn information jib fan yi ne ndekete application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro dafay jaay ay données wu millions musulmans armée américaine pour que ñoom waa États-Unis dooleel seeni pexe ngir jàmmaarloog wàllum terrorisme dinañ ñëw ci loolu naka la mën a nekkee manam nak la États-Unis mën a basé wu ci application bi nga xamanteni moy Muslim Pro pour cibler ay musulmans wala ben groupe musulman ñoo xamni sax parfois ay innocents lañ tok ñom seen réew mën di leen envoyer drone pour massacrer leen. enjeu yu garaaw garaaw moo nekk ci mbir yi du lo xamanteni julit yi war nañ ko sagane te lan moo tax mbir yi intéressé ñu moy li tax ñom ci ñaaw njort ñoom waa Muslim Pro wéddi wuñ ci seen communiqué bi ñu génnee ngir teggi tuuma que ñoom doon nañ lëkkaloo ak benn société privée américaine bu ñu woowe Xmode société boo xamante ni spécialité am mooy jënd ay données de localisation di ko jaayaat loolu lépp daan ci ñëw parce que lii gëstu nañ ko depuis ba scandale bi éclaté pour mën koo leeral suñu mbokk sénégalais yi nga xamante nii ci diine l'islam nañu tënku te installé application bi seen i téléphone te xamuñ lan moo làqu ci ginnaaw léegi balaa ñu ñëw ci naka la application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro di collaborer ak société américaine bi di Xmode bi nga xam ne ab courtier la ci wàllum données de localisation ak naka la États-Unis mën a jëfandikoo yooyu données ngir cibler ay groupe musulman pour di leen envoyer drone di leen bombarder dañuy leeral d'abord kan moo làqu ci ginnaaw application bi nga xamante ni mooy Muslim Pro ki ko créé mooy kan ndax ku ñu war a wóolu la. application bi benn startup bu ñu naan Bits Media dañu fondé en 2009 moo ko créé kan moo làqu ci ginnaaw boobee startup benn doomu France la bu ñuy woowee Erwan Massé jàpp leen benn ñaareel bi mooy waa ji du musulman kon ñi nga xamante ni dañoo mës a foog ni benn groupe musulman ay jullit ñoo dajaloo créer application bii pour jàppale seeni moromu musulman ngir ñu gën a mën a jaamu yàlla xam leen ni ki créer application bii di Muslim Pro du musulman donte jabaram musulman la loolu si baax nañu préciser ko te côté boobu ñu seen xam-xam màcc ci wàllum diine la ñuy bàyyi ñu interpréter ko ci commentaire yi mais lu mënti am

ne ñoom dakkal nañ seen collaboration ak boobee entreprise américaine maanaam li wolof naan ku moom xare bi nga bàyyi buum bi loolu la waa Muslim Pro def léegi ñen ñooy waa Xmode ci lan la ñu yëngu loolu lañ fas yéene leeral. Xmode benn société américaine la boo xamante ni liggéeyam mooy di collecter maanaam dajale ay données de géolocalisation ay information wu doomi aadama jëm ci seen dukkuwaay ben courtier la bo xamanteni day jënd ay données personnelles ci ay éditeurs d'applications ñi ñiy defar application ñiy jëfandikoo suñu téléphone diko ko jaay ay entreprises pour seeni campagne de communication et de commerce mais aussi diko jaay ay gouvernement jëm ci anam gi ñu doxale les réew ñom li moy seen liggéey société bi moy collaborer ak wa Muslim Pro légui nak lan mo tax ñom ñu choisir Muslim Pro lu sabab lolu parce que application bi lepp lu ñu soxla ci ñom domaine bi ñuy yëngu muy walum données de géolocalisation muslim pro am nañ ko te li ci gën a intéressant mooy application la boo xamante nii musulman yi kese moo ko tax jóg ndax boo jëlee application bi dañ lay demander nga may leen ñu accéder ci sa localisation maanaam yow xam fan nga féetee parce que loolu moo leen di permettre ñu mën laa wax fan la penku bi féetee boo julli waaye itam mën laa xibaar heure julli yi donc millions ngi doomi aadama yi jëfandikoo application bi yëpp te ñuy ay jullit ñoom waa Bits Media xam nañ fi ñu dëkk maanaam yow mi koy jëfandikoo xam nañ yaa ngi ban pays xam nañ yaa ngi ban

ñoom États-Unis dañoo am ci seen armée benn commandement buñ naan uscom ñi ngi ko créé depuis 1987 commandement boobu noonu mission mooy di amal ay opération fépp ci àdduna bi moo xam ay attaque wala yeneen ngir protéger ñoom États-Unis seeni intérêt léegi commandement boobu noonu ci turu seen porte-parole buñ naan Tim Hawkins dafa xamle lu yàggul que armée américaine di lëkkaloo ak ñaari entreprise benn bi ñu ngi koy Babel Street entreprise la bo xamanteni nii liggéeyam mooy di tracer activité doomi aadama yi utiliser médias sociaux yi lëkkaloo boo xamanteni nii da leen di permettre ñoom armée américaine di mener ay opération dim réew beneen société bi mooy mode bi ñu leen limal sànq ñoon ñooy waa Xmode mooy ñiy lëkkaloo ak waa Muslim Pro armée américaine nee nañ dañuy lëkkaloo ak ñoom mais leeraluñ donné wu yan application la leen di jaay États-Unis ba tey ci cadre major Tim Hawkins di porte-parole commandement bi nga xam ne mooy USSOCOM

rey nañ ci lu bare bari ci attaque drone yi nga xamanteni ni amal ko ci réew yi ci melni Yemen Yémen Afghanistan wala sax Pakistan. ndax ci nguru Obama rek buñu sukkandiko ci média britannique bi nga xamni moy The Guardian armée américaine rey na 1147 jullit junneeg téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari jullit ay innocent rey nañ leen ci ay frappe de drone yi nga xamanteni ni ñu ngi ci ay pays musulmans attaque yoy nonu la Barack Obama doon wooyee assassinat ciblé. maanaam moom Obama nee nañ liñ ci jublu woon mooy rey ñeent fukki doomi aadama ak benn kese te ñu jàpp ni cay groupe terroriste la ñu bokk maanaam ñoom ñeent fukki doomi aadama ak benn la bëggoon rey jàpp ni ay chef terroriste lañ far rey lu ëpp junni doomi aadama ci attaque yooyu nga xamante ni ñu ngi ko tàmbali le 15 octobre 2010 te Obama moo ko santaane woon rey nañ 1147 julit junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari musulman ñoo xam ne ay innocent lañ rawatina ñu ay xale ay jigéen yoo xamante nii seen yoon newul ci ay jàmmaarloo léegi loolu moo tax États-Unis nee nañ ngir bañ a juumati ci doomi aadama yi ñuy rey ci dëkku musulman yi moo tax ñu ne ñu jënd ay données de localisation ba bu ñuy ciblé benn nit wala ay chef ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dippee ñoom terroriste ñu mën a xam exactement yow ban bërëb nga nekk ban quartier nga féetee ba bu ñuy bombardé zone boobu noonu ak ay drone mën laa atteindre te bu dee ni loolu kes lañ ci jublu ñoom waa États-Unis ñun ñëpp xam nañ ni Muslim Pro mooy application bi gën a efficace ndax mboolem doomi aadama yi koy utiliser tey musulman ku ci ne waxuma réew bi nga fété mais même quartier bi nga dëkk sa emplacement wu kër ñoom dañ koy localiser. léegi ku ci nekk mun nga def sa propre interprétation Muslim Pro weddi wuñ ni doon nañ la lëkkaloo ak société américaine bi nga xam ne mooy mode benn ñoom waa mode te seen activité mooy jënd ay données di ko jaayaat te du n'importe quelle donnée ay données de localisation lay doon ñoom waa mode partenaire rek ak armée américaine ñaar ñetteel bi mooy ñoom armée américaine weddi wuñ ni dañuy jënd ay de localisation ngir mën a tracer julit bu dee ne dañ leen ciblé ngir nee nañ xeex lu jëm ci terrorisme kon ku ne mën nga tiireel sa bopp conclusion ndax objectifu vidéo bi mooy rapporter mbir yi nu mu demee ak relation bi dox diggante Muslim Pro ak société américaine bi nga xam ne mooy Exmode te ñuy jaay armée américaine ay données de localisation bu ci noppee nag bàyyi ku nekk interpréter ko en tout cas ñun ñii di wax ak yéen ba mbir yi éclaté ba ñu gëstu ko ci lañ désinstallé application bii di Muslim Pro ndax dafay làkkem du làkke bañ a dugal solo loxo moo gën application bi moom képp kuy musulman war nga ko moytu bés ni ki tey ndax même bu dara sax même buñ la ciblé wul yow mi nga xam ne yaa koy jëfandikoo te nekk Sénégal jàppal ni ñi ngi jëfandikoo application bii di ci ciblé yeneen pays musulman di ci bombardé ay innocent yoo xamante ni ñoom seen yónneewul ci wàllum guerre di ci rey ay xale di ci rey ay jigéen di ci rey ñi nga xamante ni dañu néew doole loolu rek mat na bàyyi xel kon jàngatu tay bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jëf